الحمد لله المتوحد بالكبرياء والكمال المنفرد بالعزة والجلال الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو الله الكبير المتعال الذي أنزل الشرائع والأحكام وبين على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام وهدى من اتبع رضوانه سبل السلام احمده عدد اياته حمدا مستمر النوال واشكره وشكري له من جمله الانعام والافضال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله شهاده لم تراء فيها ولا اعتلال واصلي واسلم على اكرم رسله وأنصح خلقه لخلقه محمد بن عبد الله صاحب القول السديد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبين الشرائع للعبيد وعلى آله وصحبه الذين حملوا الشريعة فأدوها بأمانة وتسديد أما بعد مكي نيو دي نيو دي زياره Eh, di fas yéene dellu si ci sunu dars yi nga xam ni moom lañu ñu tàmbale woon di ko amal ci daara ji nga xam ni ñu ngi ko tuddee kursiyul imaam Malik bi madinati Tuuba eh, mu doon daara joo xam ni la ñu ca fas yéene jàngale mooy madhabu Malik comme ni ñu leen ko présenté woon jàngale moo xam ni lépp rek lu aju ci madhab bi incha allah fas yéene nañu di ko gaaral yaa xam fiqhu madhab bi la wala mu doon usul bu madhab bi wala alqawaid alfiqhiya wala mu aju ci maqasidu sharia yépp yoo xam ne day tënku rek ci madhab bi wala muy tafsiru ayati al ahkam wala sharh ahadis al ahkam waaye ñu ne leen woon incha allah tambaligi dañuy tambalé ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamni ahadithul ahkam yi lañuy garal gaaral xasaba ma sharahaha almalikiya comme ni ko malikiya di jàngale ñu tannon ci téré bobu di umdatul ahkam min ahadisi sayidil anam lil hafiz abdul gani al maqdisi nga xam ni moo dajale xadis yooyu nga xam ne yépp rek ci al ahkam alcharciya ci lay aju waaye it ñu ne leen doonte ki bind téere bi ab xanbali la waaye bu ñu yegg ci mbiru xadis moom xadis daanaka amul madhab boroom xam-xam yépp madahib yépp aima yépp ci yenn xadis yooya la ñuy sukkandikoo xadis ya xanafiya yi di sukkandikoo même xadis yi la Maliki yi di sukkandikoo waaye it même xadis yi la Shafii di sukkandikoo waaye it même xadis yi la Xanaabila yi di sukkandikoo waaye daa fekk ni seeni déggin ci xadis ya mooy wuute yenn saa yi wala yenn saa yi bu ca déggin ya wuutewul it day fekk ni amaana kii daa jàpp ni xadis bi wér na moo tax mu def ko sukkandikuwaay waaye kee jàpp ni xadis bi wérut moo tax sukkandikoo wu ci waaye yenn saay sax dana fekk ni ñoom madaahib yëpp dëppoo nañu ci ni xadis bii wér na seeni dégg-dégg it wuutewu ci waaye day fekk ni ñii dañu jàpp ni wér na waaye daa am beneen xadis bu ñëw man suuxal ko folli ko ñii jàpp ni déedéet moom follee ko yooyu yëpp dafay faral di am loolu tax na seeni déggin di wuute looloo waral nag danga gis téeréb xadis boo xam ni day aju ci ahadisul ahkaam ab xanbali bind ko waaye ay shaafiiya sharx ko ay malikiya sharx ko ay xanafiya sharx ko ay xanaabila it sharx ko da gis téere boo xam ne it ki ko bind ab shaafi'i la mu aju ci ahadisul ahkaam waaye ab xanaabila sharx ko ay malikiya sharx ko kon ahadisul ahkaam yi moom ñoom ñëpp ñoo ci bokk yem waaye la leen cay wuutale rek mooy nañuy déggee yenn xadiis yi kon wuute ya ca dégginu xadis ya la aju wala ca jàpp ni wér naak wérut wala ca jàpp ni xadis bi kat wér na waaye des ko man suuxal kon looloo tax bu mu jaaxal kenn bu dee téere bii ñuy jàngale ke ko dajale ab xanbali la waaye it euh, nañu koy firee nañu koy sarxawe nañu cay istimbaate déggin gañ cay am lépp rek ñu tënk ko ci madhabu Malik loola it du tere yenn saay ñuy junjaale yeneen madahib yi ci seenu déggin ci xadis ya yenn saay waaye nag sunu tarkiis lépp rek day delluwaat ci madhabu malik radiallahu anhu wa ala al a'immati ajmain kon téere boobu ba tey ci la ñu ne waaye it ñu amaloon ko ay muqaddimaat benn muqaddima bi jàll na te mu aju woon ci ahadisul ahkam ak naka la ahadisul ahkam lan mooy njëriñam ak euh, ñen ñoo ca kan moo tàmbali di ca bind ñu ne woon imam malik moo ca njëkk a bind te mooy al muwatta nga xam ni lépp rek ci ahadisul ahkam la kon tey sunu jataayub ñaareel ci jàngale ahadisul ahkam yooyu euh, ci lañu ñu toll tey nag bu soobee suñu borom bëgg nañu euh, tënku tuuti ci li nga xam ni mooy taarif ahadisul ahkam mooy lan définir ko xamle ko mooy lan waaye it lan mooy ahmiyaam lan mooy fay la ca ak njëriñ ja ne eh, ci jàng ko ak ban palaas ban taxawaay la am ci at tashriul islaami ci eh, njàngum diine eh, ban taxawaay la ca jàng ahadisul ahkam am ak naka la ca boroom xam-xam yi taalife ak lan mooy seeni taalif yi nga xam ni moo ëpp solo ci taalif yi nga xam ni def nañ ko kon bu fekkee ni Euh, taarifu ahadisul ahkaam te muy tomb bu njëkk bi nga xam ni ci lañu bëgg taxaw tuuti euh, bëgg caa tàmbalee euh, biir na leen biir jullit ñëpp it nag surtout ahlu sunna yëpp wóor na leen ni sunna yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ñaareelu balluwaay mooy ñaareelu source di ñaareelu masdar ci ku bëgg a xam dara ci lislaam gannaaw alquran xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ca topp te xadis yonent bi it mooy la nga xam ni mooy firi alquranul karim mooy firi aaya ya waaye it mooy leeral li nga xam ni mooy ay atteem di ko détaillé loola xadis moo ko amee te ndigal la it loo xam ni yonent bi da ko caa am ndax yàlla subhanahu wa taala comme ni ko ñëpp xamee ñaar la jox yonent bi mooy jottali alquran mooy jottali jëmmi alquran yax yi ba benn xarfu du ca rot wala benn xarfu du ca dugg te bokku ca ndigal loolu la ko joxoon ci yaa ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik yow yonent bi li ñu wàccee ci yow mu tukkee ci sa boroom jottali ko ni ki ma ci yow ñaareelu ndigal la mooy leeralal alquran wa anzalna ilayka dhikra li Eh, li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim man yàlla dama wàccee ci yow alquran ngir nga leeralal nit ñi li ñu wàccee ci ñoom te mooy firi alquran leeral atte ya eh, yaatal ko tafsil ko teqale ko ba la ma ca digle ñu man koo jëfe nama ma ko namme man yàlla ndax la yàlla namm ci ay waxam ci alquran kenn mënu koo déggee namu ko namme lu dut yonent bi sallallahu alayhi wa te moom moo ko xamal ne lii ma digle nii kat nii laa ko namme nii laa bëgg ñu jëfe ko nii ba nga xamee ni nag ahadis yonent bi surtout ahadisul ahkaam taxawaay woo wala am borom xam-xam yi jox nañ ko yitte joo xam ni yitte ju kawe la yitte ju kawe lool dajale ko ci ay taalif dajale ko ci ay téere yu yu yaatu yu limu lool ci ay façon yi taalifin yoo xam façon yi taalifin yu bari la waaye it ànd ak façon yi taalifin yooya yëpp eh, ahadisul ahkam moom dañ ko wutal ay taalifi boppam jagleel ko ay téerey boppam ber ko ba nga xam ni jaxasoowul ak yeneen xadis yooya ca des xadis yi aju ci pas-pas xadis yi aju ci jikko xadis yi nga xam ni dafay aju ci eh, siira yonent bi yi di aju ci manaqib yi nga xam ni dafay aju ci ay aadaab yooya yëpp dëgg la ci biir xadis yi dañuy dugg waaye borom xam-xam yi dañoo sepp ci mboolem xadis yi lii aju ci al ahkaamu sharciya kese ber ko ci ay téere ngir nag mu mën a doon ak jàppandal ci ñi nga xam ne dañoo bëgg a jàng fiq euh, ak ñi nga xam ne dañoo jàng fiq ba noppi bëgg seen fiq boobu ñu jàng ci téere yi mutuun yi bëgg koo amal ay lay ay lay ak i dalil ya nga xam ni ca la masail yooyu ñu jàng ci seen téere yi mutuun euh, ca la aju kon dañ ko def ngir jàppandalal jàngkatu fiq yi ak jàngalekatu fiq yi ngir ñu mën a xam masaili fiqhiya ana yan ñooy seeni sukkandikuwaay eh, ngir jàppandalal it mujtahiduun yi ñi nga xam ne yegg nañ ci dayoy ijtihaad doon ay borom xam-xam yu mag ah, ñu indil leen jegeleel leen masail yi ba ba xadis yi ba hadisu ahkaam yi ngir laaj guñ leen laaj ñu mën a dellu ci tontu ko wutal koy dalil donte laaj bu bes la donte ab nazila la ndax nak borom xam-xam yi ak lu borom xam-xam mag mag tekki wul ni da pek lépp ci masail yi ba luñ ko laaj rek mu man ca tontu tontu lu jup ci sasi loolu amul kenn ku ko suñ borom defal kudul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom maraqim ngi koy junj fal kullu min ahli al manahil arbaa يقول لا أدري فكن muttabia nee na mboolem ay ma al arbaa yi nga xam ni ñooy sunuy royuwaay ci fiq ku ci nekk masees na laa laaj ay masail waaye nga tontu ci masail yooya ne xawuma ko imaam Malik mas nañ ko laaj ñeen fukki masala ak juróom-ñett fanweeri ak ñaar yépp mu tontu ne xawuma ko dëgg la faqih la mujtahid la waaye ci saasoo suñu ko ko laajee xamu ko waaye comme xadis ya jege woon na ko bu demee gëstuwaat ci xadis ya ca ëllëg sa wala gannaaw ëllëg sa wala ca ay fan yu ca topp yooyu yëpp mën naa gëstu ba xam ah, nañuy tontoo ci masail yooya ñu ko laajoon mu tontu ca saasa ne xamuma ko ndax dañ ko bett ak laaj yooya kon xadis yi nga xam ne mooy ahadisul ahkaam dajale giñ ko dajale dana dimbali mutafaqih bi waaye it dana dimbali mujtahid bi ngir mu mën a yegg ci xam tontuy furuux yi nga xam ni dañ ko koy laaj yenn saay mu doon lu bees tàq ci moom kon loola bokk na ci ay njëriñam kon buñ la nee ahadisul mustalahu ahadisil ahkam nag lañ ca jublu ca ahadisul ahkam bu ñu ko waxee lañ ca jublu mooy ni huwa nawun min al ahadis nabawiyya allati yustadallu biha fi kutub al fiqh al islami façon la ci hadith yonent bi façon bo xamni euh mom lañuy Euh, def tegtalukaay moom la ñuy def sukkandikuwaay moom lañuy def dalil ci fiq téerey fiq yi kon dalil la ci téerey al fiq lislaam yi masala mu ca ne dalilam ba koy firndeel ne lii ci sharia la bokk liikat ci lislaam la bokk liikat kat nii la ko sunu borom bëggee nii la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis yooyu ñooy feet dalil téere fiq yi loola nga xam ni mooy aju ci masaayil ya nga xam ni saxal nañ ko ca kon xadisul ahkaam buñ la ko waxee wala xadis ci boppam buñ la ko waxee mooy lépp loo xam ni dañ koo askane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa xam ay waxam la ay waxi boppam wala ay jëfam wala loo xam ni da koo fekki réaction bi mu am ca loola mu fekke loola la ñuy tudde xadis wala mu doon melokaanu yonent bi yaa xam melokaanu jëmmam jëla bët ya nii la meloon nopp ya nii la meloon tànk ya nii la meloon yaram wa kawar ga nii la meloon loolu yëpp day dugg ci xadis waaye it melokaanu ay jikkoom yooyu yëpp day dugg ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ la ne alxadis kon xadis waxi yonent bi la lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam masa wax ca ba ko yàlla yónnee ba keroog mu fiy jóge loola wax jooja ci boppam xadis la lépp lu mu masa wax xadis la ak fu mu ko mën a waxee nu mu ko mën a waxee même ay kaf yoo xam ni daan na kaf ak ay nit sax yenn saay loola sax xadis la kon lépp lu jibe ci yonent bi ci ay kàddu xadis lañ koy tudde ñaareel bi it mooy ay jëfam lépp lu yonent bi mas a def ci dundam ba ko yàlla yónnee ba keroog mu fi jóge lépp it xadis la kon xadis yamul ci ni rek qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye xadis mooy lépp lu jibe ci yonent bi ndax nag yàlla subhanahu wa taala dafa am lu mu ñu sas lu mu ñu digal ci yonent bi laqad kaana lakum fi fi rasulillahi uswatun xasana jëmmi yonent bi ci boppam da ngeen ci amuk royuwaay yonent bi ci boppam jëmm ji ci boppam lépp lu ca jibe royuwaay la man ngeen luñ luñ luñ ko mën a royale lu dut loo xam ne nag dalil dafa ñëw settee ko ne lii kat wareesu ko caa royi ndax moom moo ko jagoo lii sañeesu ko caa roy ndax moom moo ko jagoo euh, waaye lu mu def la gën a néew ci lu ñuy màndargaale jëfi yonent bi mooy lii mu def nii kat sañees na koo def bu dul farata du sunna du lu ñu sopp alal aqal la gën a néew mooy ni lii yonent bi def nii sañees na kaa def ndax lu def wut yonent bi du ko def sallallahu alayhi wa lu dut loo xam ni dali la ñëw kat ne lii kat yonent bi xasaais yonent bi sallallahu alayhi ne lii kat bokkul ci li nga xam ni dees na ko ca roy yooya boo demee ci téerey fiq yi téerey siira yi indi nañu ci yu baree bari même demee ci Barzanji bu sëñ Moussa Ka indi na ci lu baree baree bari ci yi nga xam ni ay jagle yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam kon lépp lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi la ci euh, imma loola jibe ci moom doon farata mu war ci ñun comme ni mu waree ci moom wala mu doon sunna ñu sopp ko ci ñun comme niñ ko soppe ci moom mu feddaliku wala mu doon rek lu ñu sopp indal malikiya nañ ko soppe ci moom soppe ko ci ñun wala mu doon loo xam ni e, dañ koo sib ci moom nañ ko sibe ci moom sibe ci ñun wala mu doon loo xam ni dafa xaraam ci moom lu xaraam ci moom xaram ci ñun kon yi nga xam ni def ko ak ñàkk def ko te muy jóge ci yonent bi salaay sallama génnul yii waaye ya nga xam ni nag def na ko wala mu wax ko bu fekkee ni dafa am dalil buy wane ni lii kat yonent bi moo ko jagoo bu boobaa loola ñun sañuñu ko caa roy ndax moom moo ko masail yooyu bari na waaye duñu ci guddal kon xadis yonent bi saa sallam mooy lépp loo xam yonent bi mas na wax ca ba yàlla yónnee ba ni muy wuyjee boromam lépp lu mu mas def ca ba ko yàlla yónnee ba ne muy wuy jee boromam waaye it lépp lu yeneen ci bi fekkee lu mu fekke ñu koy def mu gis ko wala mu dégg ko réaction ba mu def mooy waxu ca dara romb leen dem yoonam loola day wan ni loola sañes na koo def mu fekk am ñuy def dara mu xool leen ba mu neex ko romb leen dem yoonam waxu leen dara loola day wane ni loola ñooñu def kat lu daggana def la ndax bu daganul woon def yonent danaan bu leen ko defati kon loolu lañ naan lañ naan kon lu yonent bi fekke wala ñu wax ko ci kanamam mu noppi ca waxu ca dara loola day wone ni lii kat lu defu la lu ñu sañ a def la kon loolu lañ naan ak taqrir kon lii mooy xadis yonent bi sallam bu fekkee ni ci ni la nag ñoom la ñuy tudde xadis mooy aqwalu nabi sallallahu alayhi wa sallam wa afaaluhu wa taqriratuhu مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي اصول نيوم نينا حديث ولا سنه موي وخي يونت صلى الله عليه وسلم اكي جفم اكي تقريراتم موي لو خامني فكناكو تا تريوكو تي لو خامني نك مانيس نتا سكنديكو مودون دليل تي شريعه غيس نانيو ووتيك muhaddisuun yi ci ni ñuy définir hadis wala sunna ndax ñee nañ koy définir mooy lépp lu mu def ak lépp lu mu wax ak lépp loo xam ni da ko fekke lépp day dugg ci hadis inda al muhaddisin ak jikkoom ak melokaanam waaye usulu yiwu ni ñoom la leen yitteel ci wax yaag jëf ya mooy loo xam ni day delluwaat doon atteb sharia wala di jàngale atteb sharia moo tax ñu ne la mimma yasluxu an yakuna dalilan li xukmin shar'i ci loo xam ni manees na kaa def sukkandikuwaay ci atteb sharia ñoom loolu la wax ni mooy eh, sunna loolu la wax ni mooy xadis yonent bi sallallahu alayhi kon xadis ca ñoom doon loo xam ni eh, dañ doon sukkandikuwaay woo xam ni ab atteb sharia man na caa sukkandiku kon ñoom melokaanu yonent bi ci jëmmam jë loola konte wuñu ko ni xadis la ndax jëmmam jë na mu bindoo kenn mënu ko caaro yi waaye loo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo def te def jëf jooju it doonut loo xam ni day dellu doon atteb sharia comme bu daan toog nii la daa tooge yooyu yëpp ñoom konte wuñu ko comme ni eh, dalil shar'i la kon foo xam ni rek mënees na ko جف جو خمني ولا وخ جو خمني منيس نتا سكنديكو مدون دليلا لحكم شرعي نيوم أصول يوني لولا لن يجابني موي سنة يونتبي صلى الله عليه وسلم بفكيني أحاديث الأحكام لنا نيوم نيب دبونا نيو يا خم محدثوني لا ولا مدون فقهاء ويك أصول يوني دبونا نيو تيني أحاديث الأحكام هي الأحاديث النبوية المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية mooy ni mooy xadiis yi yonent bi sallallahu alayhi wa ya nga xam ni dafay aju ci attey sharia yi nga xam ni attey jëf la mooy xadiis yi jóge ci yonent bi ay waxam wala ay jëfam wala ay taqriraatam waaye nag wax ak jëf ak taqriraat yoo xam ni mën na doon sukkandikuwaay ci atteb sharia boo xam ni atteb jëf la kon nga gis ni atteb sharia boo xam ne attey pas-pas la ñoom wuñu ko ni wuñu ko ci ahadisul ahkam ahadis yi ñëw di jàngale pas-pas diggante jàmbeeg boromam lu aju ci melokaani sunu borom lu aju ci turi sunu borom ak lu aju ci الصفات yu mel حق الرسل أخيات ko ci al دوغلون كوتي الأحكام الشرعية كون مونتا دوغوتي أحاديث الأحكام كون أحاديث الأحكام lamuy jàngale kon indahum moy hadith yi nga xamni dafa tukke ci yonent bi tay aju ci atep sharia bo xamni atay jëf la du atay pass pass kon wax jojo lañ cey déggé moy rek ni ahadithul ahkam hiya kullu ma thabata عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير يتضمن خطابا شرعيا يفهم منه طلب الفعل أو الكف عنه أو جعل شيء سببا أو شرطا لشيء آخر أو مانعا منه كن عندهم أحاديث الأحكام فنيوم ci taarif bii ñu ko taarif lañ ca mën a dégge mooy ahadisul ahkam mooy loo xam ni bépp hadis boo xam ni sax na wéree na ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam yaa xam ci ay waxam la walla mu doon ci ay jëfam walla mu doon ci ay taqriraatam waaye mu doon wax ak jëf ak taqrir goo xam ni dafa làmboo xitaabuk sharia dafa làmboog ndigal loo xam ni dafay jóge xaatabante goo xam ni dafay jóge ci sharia jëm ci mukallafuun yi xitaab goo xam ni dafay jóge ci sharia jëm ci mukallafuun yi ci anam goo xam ni dañu sàkku ci mu mukallaf bi mu am lu mu jëf walla lu mu bàyyi dafa am lu ñu sàkku ci moom mu def ko yaa xam càkkutéef gi dañ koo farataal ci moom wala dañ koo sunnaal wala ñu sopp ko ci moom wala yaa xam càkkutéef gi dañ koo daganal ci moom wala yaa xam càkkutéef gi lu ñu sible ci moom wala yaa xam càkkutéef gi lu ñu ko tere la ndax tere ak càkkutéef la ni ndigal doone càkkutéef kadalika noonu la ak tere doone ak càkkutéef ndax euh, euh, buñ la teree dara loola lañ ca jublu mooy nga bàyyi mooy liñ la tere nga bàyyi ko dafa am lu ñu sàkku ci yow càkkutéef googu ak tere la mooy lii kat tere nañ la ne bu ko def kon loolu mooy mooy càkkutéef googu kon tere dafa làmboo ak càkkutéef ni ndigale lam ni ndigal làmboo ak càkkutéef buñ la digalee dara jullil dafa am lu ñu sàkku ci yow pour nga def ko mooy taxawal julli buñ la nee bul laal yëfi jàmbur bul sàcc loolay tere la waaye dafa am lu ñu sàkku ci yow mooy dañoo sàkku ci yow nga bàyyi nàngam kon tere ak càkkutéef la comme ni ndigal doone càkkutéef euh, kon buñ la waxee ni xitaabu yàlla wala xitaabub sharia boo xam ni mënees na ca déggee ak càkkutéef wala ñu man caa déggee fegu bàyyi mbir moo xam ni mbir mu ñu ràññee la sàkku nañ ci yow nga def wala sàkku nañ ci yow nga bàyyi loola yépp day dugg ci ahadisul ahkam bépp hadis bu làmboo ak càkkutéef càkkutéefuk defal wala càkkutéefuk bàyyil loola yépp dafay dugg ci ahadisul ahkam yemul ci loolu waaye bépp xadis boo xam dafa làmboo di jàngale ni mbir sàngam kat dañ koo def mu doon sababuk mbir sàngam xeetu jaamu yàlla gii ñu leen digal muy julli dafa am ay sabab sabab si bo sabab yi bokk na ci julli tisbaar bu jant bi jengee kon jenguk jant bi sabab la ci war gi war gi sabab la ci wareefuk julli tisbaar ñeela timis dañ la diggal julli timis waaye màndarga gañ la tegal ci nga julli timis mooy ni bu jant bi sooyee kon màndarga yooyu ay asbaab lañu ay sabab lañu sabab yoo xam ni la muy jàngale mooy ni ndigal lii ñu la jox ci jullikat sabab si mooy ni waxtu wii nga ko war a def mooy ni sowug jant bi mooy sababu warug julli timis ndax bu jant bi soowagul julli timis waragu la bu zawaal jotul jant bi jengul julli tisbaar waragu la bu fajar fenkul julli fajar waragu la kon yooya asbaab yooya it ña nga xam ni ñoo lay xamal waxtu ya nga war a def ndigal ya yooy it dafay duggaale ci ahadisul ahkaam ñu la ajit waxtu sàngam lay jot bi sàngam ngay dem arafa bis sàngam ngay dem mina bis sàngam ngay sànni jamra yi bis sàngam ngay la nga war a def yépp ci ak ñu wutal ko ay sabab ne lii kat bu jotee ci nga war a def nangam asbaab yooyu it dafay duggaale ci ahadisul wala ñu jël mbir yi defal la ko charte lépp loo xam ni dañ la ko defal charte ci ab jaamu yàlla charte googa ju la tegal charte booba it day duggaale ci lay jàngale charte bi day duggaale ci ahadisul ahkam buñ la nee julli bokk na ci chartiya mooy nga nga nga nga laab kon laab googu it eh, day duggaale la koy jàngale day duggaale ci ahadisul ahkaam buñ la nee natt azaka joxe azaka bokk na ci charte yi xawalaanul xawli alal ji nga am bu fekkee ni alalub xaalis la eh, mu def ci yow at ci yenn anam yi bu boobaa charte googa ñu la tegal ci joxe azaka dafay duggaale ci ahadisu la koy jàngale day duggaale ci ahadisul ahkaam ñee la bokk na ci charte azaka it Euh, la nga amee ci alal tollu mot nisaab kon motug nisaab gi it charte la ci wareef googa nga xam ne suñ borom dala da koo waral ci yow muy joxe azaka kon lépp loo xam ne dañ la ko defal mu doon sabab loola it la koy jàngale ci ahadisul ahkam lay dugg lépp loo xam ne dañ la ko defal mu doon charte la koy jàngale ci ahadisul ahkam lay dugg naka noonu mawaani yi loo xam ne dañ la ko defal mu doon maania ne la lii kat ndigal lii ñu la jox nii kat boo tolloo ci xaalu sàngam ndigal la teggeekoon teggeekoon dina la kon maanic googu nga xam ni moo lay tere joxe ndigal loola maanic booba it la koy jàngale day duggaale ci ahadisul ahkaam ni ki jigéen joo xam ni mu kal ab jul jigéenub jullit muy julli di julli ba xëy gis baax kon baax googu mu gis règle googu mu gis maanic la ba sañatu la julli julli juróom fekk règle ga euh, euh, setul fekk setul ci règle am muy woor ba jekki-jekki bis mu xëy gis baax kon bu boobaa sañatu la woor kon règle googa mu gis ab maani la kon yooya yépp lay jàngale yooya yépp dafay duggaale ci ahadisul ahkam kon ci gàttal lii mooy ahadisul ahkam ak ahadisul ahkam lii moo ko concerné ci yi nga xam ni moom moom mooy mooy xadis yi kon bépp hadis boo xam day làmboo xeet yi ñu tudd léegi di jàngaley ndigal di xamle ndigali sunu boroom ak i tereem waaye di xamle sababi ndigal yooyu ak sababi tere yooyu di xamle sarti ndigal yooyu ak sarti yooyu di xamle yay fànq ndigal yooyu tere yooya lépp lu aju ci loola yooyu la ñuy tudde ahadisul ahkam kon loolu euh, benn la ñaareel bi mooy ahamiyatu dirasati ahadisul ahkam jàng ga ñuy jàng ahadisul ahkam ban njariñ euh la chaque ni jang ahadisul ahkam amna ay njariñ yu bari lol am ay njariñ yu reuy lol surtout nag eh, ci ab faqih ko xamni euh day jang fiqh wala mu don borom xam-xamu fiqh jang ga muy jang ahadisul ahkam dana ko dimbali formé xelam tagat ko tagat ko tagat go xamni dina ko mën a may mu am conscience bu koy mën a dimbali ngir saasu ab masala jibee mu mën a xam masala mii kat atteem gii atte gii nga xam ni moom la ko fuqahaaw yi atte dalilam mooy nangam loola benn la euh, boole ci it dana ko dimbali muy am ak xel mu dal am yaqiin ca la nga xam ni moom lay ubbee saa su ne ci ni lii muy ubbeekat euh, ndigalu sunu boroom ci la ko teg njàngalem sun borom ci la ko teg waaye it njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci la ko teg ndax bu kenn fàtte ni jàngalekat bi mufti kat bi ubbeekat bi dafa mel ni sunu borom lay représenté lay wuutu ci li nga xam ni mooy ubbee gi muy ubbee ndax fatwa yàlla ko moom looloo tax ibnul qayim tudde téeréem bu mag boobu ilamul muwaqiin an rabbil alamin al muwaqiun an rabbil alamin mooy ñi nga xam ne ñooy signé ci place bi yàlla waroon a signé ndax yàlla moo moom fatwa yàlla moom tontu laaj yonent bi fu ñu ko waxee yas alu naka rek an nangam yàlla moo cay tontu fu ñu ko waxee fu ñu ko ubbeeloo rek yas yastaftu naka yàlla mooy tontu bu fekkee ni bu ñu laajee yàllaay tontu bu ñu ubbee yàllaay tontu kon yonent bi du tontukat yàlla mooy tontukat yonent bi kon da daan tontu ci palaasu yàlla waaye it boroom xam-xam bi bu ku toll ci am dayo yi mën a doonub mufti man di tontu masala ya ngay tontoo na nga xam ni yaa ngi signé ci turu yàlla ki la laajub masala mu mu mën a doon ci diine tontu la koy tontu laaj gi la mu lay laaj sëñ bi kat man dama lay laaj nàngam doonte waxul sax ni sëñ bi dama lay laaj lan mooy àttey yàlla ci nàngam yow war ngaa xam ni attey yàlla ci mbir mooma la lay laaj du sa xalaat du xalaatuma demba du xalaatuma sàmba ki la laaj masala ci diine lisaanu xaalam la ne mooy lan mooy atteb yàlla ci mbir mii ma lay laaj nii kon yow fexeel ba la koy tontu nga am ci yaqiin wala van xaalib ne lii li ma lay tontu nii kon maa ngi lay tontu ci ni atteb yàlla ci lii nga may laaj nii mooy nangam kon laajkat bi atteb yàlla lay laaj ca la muy laaj yow it tontukat bi war ngaa fexe ba la nga koy tontu mu doon atteb yàlla ca loolu nga koy tontu moo tax wàllu fatwa garaaw lool dangere lool metti lool jafe lool wuuteeg ni ñu koy defe fii ci réew mi wala ci fu baree baree bari ci àdduna bi nga xam ni pëccëxoo ba ca ne kenn xamut kenn mënu la koo misaal benn masala da ko laaj fukki nit kenn ku nekk tontoo la nu bokkul ak na la keneen ka da ton di tontoo dara waralu loola nag lu dul ñàkk tënku ci ay madhab tënku ci nañuy suñu dégginu bopp rek moo tax madahib yi il ñuy tafaqux ala daw il gannaaw boo tafaquxee it ala daw il madhab bu ko defee boo yeggee ci martabay nag mën a ixtiyaar bu boobaa mën ngaa yaatal sam njàng ci yeneeni madahib tànn ca la nga xam ni aw faqu wa aqrabu lis sawaab indak loolu moo jaadu waaye kuy tontu ci lislaam na bàyyi xel ni ka ko laaj atteb yàlla la ko laaj ci mbir ma mu ko laaj waaye it na bàyyi xel ni moom la muy tontu lisaanu xaalam la muy wax ca tontu loola mooy ni atteb yàlla ci lii nga may laaj mooy lii ma lay tontu nii kon loolu mawqi bu dangereux la lépp loo ca tontu te amuloo yaakaar ni lii la yàlla wax ci nangam rek bu boobaa yaa ngi fenal yàlla ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كان مو غن من توغن كوي فنال يالا كون كوي تونتو تي الاسلام لو خامول ياغي فنال يالا ياغي فنال يوننتي بي وايت ياغي فنال الاسلام دي فنال القران لولا كون موقع بو دانجير لا كون تونتو كات يي دي تونتو لاج نانيو باي خيل تي لولا بو باخا باخا باخ كون ليغا خامني موي جانغ احاديث الاحكام عملنا فقيه بنجارين لول amal talib bi njariñ lool comme ni ñu ko misaale léegi looloo tax ñàkk koo jàng doon loo xam ni boroom xam-xam yu bare bare bari critiqué nañu jàng fiqhan fiqh mujarrad anil adilla ñu bare bare bari critiqué nañu ko euh, boo demee ci shaati bi nee na ay jamono dafa doon dafa dajeeg sëriñam bi ñu naan abul abbas al qabbab bi mu dajeeg moom mu yorub téere mu ne ko téere bi ban la mu ne ko téere sàngam téere bi nag ñu ngi wax ni eh, eh, iqdul jawahiri samina la bu ibnu Shaas bu najm ibnu Shaas mu ne ko moytul téere mutaaxiruun yii te boo xoolee ibnu Shaas mi ngi doon dund ci alqarn saadis juróom-benneelu siècle jàpp ci juróom-ñaareelu siècle mu ne ko bàyyil di jàng téere yi mutaaxiruun yii dara nekku ci lu dul xiila wa qaala boo bëggee xam-xam dellul ca téere mutaqaddimun ya lu deme ni al mudawana lu deme ni al waadixa bu ibnu habib lu deme ni al mawaziya lu deme ni al utabiya téere yu yàgg yooya nga xam ni mooy usul ya booye boo ngay sukkandiku ah, ci téere yu mel noonu bañ di sukkandiku ci li nga xam ni mooy téere yi mutaaxirun yooyu kon mutaaxirun yi seeni téere nga xam ni mooy muxtasaraat yii di mel ni téere boobu ñu tudd léegi dëgg la xam-xam dëgg moo ci nekk bu wér lu demee ni muxtasar ibnul xaajib lu demee ni muxtasar xalil ak xeet yu mel noonu dëgg la dañ koy jàngali tafakkur waaye buñ ca yem nañu yaatal dem jàngi adil la yi nga xam ni ca la téere yooyu sukkandikoo ba tënkal ñu ci lii nga xam ni moom la ñu ci tënk tënkal waaye buñ ca yemee képp képp képp rek loola dëgg-dëgg borom xam-xam yi lu mel noonu lañ doon critiquer boo demee ci ku mel Cheikh Mohamad Tahir ibnu Ashur moom it ni ko daan critiquer sukkandiku ci sëriñam boobu di abul abbas al qabbab naka noonu noonu la ko cheikh mahamad tahir ashur doon critiqué jàng mutun kese kese kese bi duuni ngay jàng ahadisul ahkam mi ngi koy wax ci téeréen bi mu tudde alaysa subhu bi qarib mi ngi critiqué ah, namat boobu min namati tafaqu façon ngi njàngin moomu nga xam da ngay jàng kese boo ca pare nga ci njàng jéemuloo dem jàngi ahadisul ahkam ak ayatul ahkam ak usul yi nga xam ne mutun yooye ca la sukkandiku yooya nee nañ loola am sikk la am manqué manqué la cim njàng naka noonu muhammad ibnul hasan al xajawi ci téeréem biñ naan al fikru saami fi taarix al fiqh al islami moom it mi ngi critiqué façon ngi njàngin moomu jàng mu tuuni saa nga jàngaale ci li nga xam ni mooy adilla yi nga xam ni mooy adillatu al ahkam shar'iyya ci alquran wala ci hadis yentu sallallahu alayhi wasallam kon ñoom ñaar ñëpp wax nañu ni fiq moom mënut a taxaw doon fiq dëgg dëgg dëgg nit ki it mënuñu ko forme mukk taalib bi pour mu doonu faqih lu dut ni mu muqararaat yi laa bud dañu am ay yeesal yu ñu ci def ay yeesal yoo xam ni yeesal yeesal yeesal yu bari mooy téere yi ñuy jàng laa bud dañu am yu ñu ca dolli laa bud dañu am lu ñu yu ñu ca dolli laa bud dañuy yar talabatul ilmi ci téere yi fiq yi nga xam ni la day doon téere mu assala masala mu mu la wax تخريجا لا دليلا دليلا في القران ليلا ولا دليلا في سنه ليلا ولا دليلا في اجماع ولا في قياس ولا دليلك في استحسان لا اجو لا لا لا سكنديكو ولا في مصلح المرسل لا سكنديكو ولا في عرف لا سكنديكو ولا في مذهب الصحابي لا سكنديكو واخلا تيري بو خامدي لاي واخ مثلا مو نه تي لان لا سكنديكو ولا مثلا مي كات دنجكو تخريج في منين مثلا مو خامدي دا فاي نيروك موم تي لانكو قياس تي لانكو تخريجي موتاخ ني تيرلي كوني nee la laa bu dañuy delu bu ñu yem ci mutuni waye bu ñu jàngee mutuuni ba pare nañuy delu ci téré yoy nga xamni musannafat wa muallafat muassala mu yu ñu tasil la yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu jëmmal seeni dalil la mu ne tullaab yi la budda dañu ñu formé len entraîner len ci jàng téré ahadithul ahkam yi téré yi nga xamni ahadithul ahkam lay jàngale lu mel ni al ahkaamul kubra wal ahkaamul wusta wal ahkaamul sugra bu abdul haq al ishbili bi ñu doon tudd lu melni tamal len entraîner len tagat len ci ñuy jàng shuruh kutubu sitta wala siyama bu fekkee ne ab maliki nga muy jàng shuruh kutubu sitta yi nga xamni ay maliki ya ñoko ko def bu dee lu mel ni comme sharh ibn battal waaye bu dee lu mel muslim comme sharh ikmal al mu'lim fi bu bu qaadi iyaad ikmal ikmalu ikmalul muallim bu ubbi wala mukammilu ikmalul ikmal bu sanusi bu fekkee ni lu jëm ci sunan abu daaw la jàngal leen lu mel ni almanhalul azbul mawrud nga xam ni moom tamit noonu la amee solo ci jàngale ahadisul ahkam bu fekkee ni lu mel ni la jàngal leen tàggat leen ci téere bu mel ni ahwadi bu ibnul arabi yooye yépp ak mu wartaa ci suruxam neena na dees leen ci war a tàggat surtout chara yi nga xam ne ay maliki yi ñoo ko def bu fekkee ni taalib bi dafa bëgg a doon ab maliki la bëgg a doon faqix في المذهب المالكي وين انا يمول تي لولو لابد نيو تاغات لين تي جانغال لين آه، تيري ييغا خامني دا لامبو تفسير ايات الاحكام تا اي مالكيه ديف كو بو فكيني طالب بي اب مالكي لا لو ملني احكام القران بو ابن العربي واي لو ملني احكام القران بو بكر بن العلاء القشيري لو ملني احكام القران بو ابو بكر الباغاني لو ملني احكام القران بو آه، ابن الفرس واي لو ملني تفسير القرطبي في خلال تاغات لين تي بانيو مانا خام gannaaw ba ñu jàngee mutuun ya ñu mën a xam ahadisul ahkaam yi nan la tëdde ak nan lañ cay nan la ca mutuun ya tegtaloo waaye xam ayatul ahkaam nan la tëdde ak nan la ca mutuun yooya tegtaloo kon eh, lii mooy soññee gi nga xam ni boroom xam-xam yi soññee woon nañu ko ci ki nga xam ni mooy taalib boo xam ni mutafaqih la fii madhabil maliki yitte ji nga xam ni da ko war a jox ahadisul ahkaam eh, loola boroom xam-xam yi noona lañ ko tëralee noona lañ ko waxee kon eh, dafa mel ni li ñu amoon ci waxtu eh, mi ngi bëgg a mi ngi bëgg a mi ngi mi ngi ñuy bëgg a dab kon ñu ñaan yàlla mu may ñu tawfiix ba ñu mën a delsiwaat ci sunu jataay yii ci yeneeni tomb incha allah leeral ko te lépp rek di aju ci muqaddimaat yi nga xam ne moom la ñu bëgg a defal téere bii di umdatul ahkaam lu jëkk ñu cay dugg kon ñu ngi leen di joxaat dig daje ci sunu dars bii di ñëw insha allah wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh